xam nga permettre moom ma nuyu sa téléspectateur yëpp. Mhm. nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. di woo sénégalais yëpp leen wax nañu dal. Mhm. mais def appel au calme bu mag a mag parce que senegal réew bu ndaw la te ñun ñi nekk ci biir Sénégal gi ñëpp ñun ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. Euh, su ma fi ñëwee tey euh, dama fi ñëw. parce que dafa am lu bëri loo xam ne ne man xam naa ko ci wàllu expérience euh, surtout par rapport à la géopolitique mondiale mm-hmm. par rapport ak sunu responsabilité ñun Sénégal xam nga ku toog xaar juróomi at suñ la waxee xaaral fukki weer war nga ko mën a xaar pour que réew mi bu mu tàkk. parce que Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ne dañu nekk nit yu bari réew yu bari yéene jàmm lu koy waral euh, soo seetaanee Coupe d'Afrique bi passé bi ñu éliminé ñu bari dañu kontaanoo. ça c'est voilà voilà. Euh, soo xoolee 2012 ak tey dafa am ay efforts géostratégique yu mag a mag yu ñu def yoo xam ne ne pour que ñu régler problème mu Casamance bi de façon définitive sama inquiétude yu mag a mag a mag moo nekk foofu noonu ñu wëlbatiku am pétrole am gaz yàlla dimbale ñu may ñu position géographique bu exceptionnelle xam nga réew mën nga yeewu nii rek am pétrole ak gaz te doo gêner ay réew mais suñu position barycentrique bi Sénégal yor suñu position maritime bi Sénégal yor euh, euh, position historique liée au traite euh, à la traite négrière bi Sénégal yor mhm. moo tax Sénégal bi mu amee gaz ak pétrole dafa déranger pays yu bëree bari bari bari loolu nag pays yooyu pour ñu yàq Sénégal pour ñu bloquer Sénégal pour ñu empêcher Sénégal mu dem de l'avant mënu ko jaaree fenn sudul ci doomu sénégalais yi